ñi nga xamante ni dañoo am dooley poos di bëgg def forcing tel que yaa trêve ne match du am ñu ne ñoom dañu am dooley poos muy Mbaye Diouf Dia ak ki nga xamante ni moom mooy Sayer Seck avec tout le respect qu'on les doit ñu war a taxaw fii naan le mal na se répond que par le mal en tant que autorité war a jaxase ay xale ak ay gémiens di xeex ak seeni moroomu xale su ngeen gisee démb suñ leen wanee image yi bu fi écran taxawoon ñu wan leen image yi man ak Arafat huit heures la ñu tëdd dañ doon yëkkati ay bagages ci camion di wàcc fii te loolu du yoon dañ ñu fitnaal démb tëj buntu yi teg fii nekk dara du fi dugg te ba trois heures du matin gëmmuñu suñuy bët ñu nekk fii di ko def mbay Diouf Dia ñun équipe bu Touré Kunda suñuy grand lañ suñuy frère lañ di masta waa Casa ci seen déplacement mais dama leen di xamal rek ni leen frère yooyu sax di waa Turekunda boo leen laajoon lu leen gënal ñooy la concert bi parce que yoon rek mooy dëgg te yàlla dëgg la àndal mais je vais vous dire une seule pour wax leen ni leen ñun on n'a pas ragaluñu lépp lu yàlla sàkk ci kaw suuf doomu aadama ak gën te ñun duñu ay mala ay nit lañ amuñu lu ñuy tiit dooley poos la am ñun ñu am dooley doomu aadama li ñu drainé nii kenn joxu leen ay sandwich kenn joxu leen t kenn joxu leen kaar yéen a jënd seen kaar yéen a jënd seen i t-shirt jënd seen i ticket yéen a tax maire yi tey suñu xëyee dinañ joxe dépense seen kër ndax ñu ngi jaay seen i seen i affaire seen i kër fii. nag tey représenté dëkk bi ñu ngi dugal ay yenn autorité naan on a appelé le ministre. Nous remercions encore la préfet qui a, qui a u la, la maturité que jox naa leen autorisation pour nous fii non le kilifa di def di dugal ay nit nan ay ministre wax li ay ministre kenn waxut c'est Mbaye Diouf Dia et Sayer Seck